ولا عيب فيه هدى للمتقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu nuyoo sant julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziyaara di balu àq ñëpp leen ndokkeel ci bés bi nga xamante ni di bés bu tedd di bésu daare kamil di bés boo xamante ni yaraax yëpp ñoo ko bokk ngir ñaareel sunuy néew tabaarakallahu ñu ngi gërëm nag di sant suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo ñëw ci bés bi di imaamul notable de quartier ñoom ñëpp yegg si nañ ci bés bi bés bi nag tabaarakallahu dafa ala doon parce que dafa yem ak bésu koor di nekk ci fukk yu mujj yi ñu ciy dabu yërmande yàlla di ci dabu ñaan njëggalu yàlla moo tax yàlla ñu yàlla boole defal kontaan nañ bu baax ci taxawaay bi nga xamante ne moom la ñëpp taxawee ñu fas yéene def bés bi nga xamante ne mooy bésu ñaanal suñuy néew bés boobu mu nekk bés bu tedd di bés boo xamante ne bés bu yaakaaru la ñi ko initié nag ka ca bopp ba rek la ñuy tudd ndax bu ñu limee dañuy juum ñu koy wax sunu baay Alioune Seye nekk ko am xalaat bu rafet xalaat bu yéene boo xamante ni nii foo ko natt weesu na ko tabaarakallah mu àndante ko ak waa Daare Kaamil ak imaamu dëkk bi ak notable yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ndax lii tey ak soxla yi bari nañ waaye ñëpp bàyyi nañ seen i soxla ñëw ci bés bi kon nag am nañu yaakaar ak yaqin di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne ni ñoo ŋànk mbir mi muy waa Daare Kaamil ñu leen di wax mention spéciale di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay waaye alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw tey moom wax dëgg yàlla ni ñu organisé tey ji dañuy wuy borom rek subhaanahu wa taala bi wax ni nañu mottali coloré coloré mënul weesu nag way dawlu ñu leen di ñaanal mboolem magu dëkk yi ñi fi ji ñi fi dawlu yëpp wax dëgg yàlla ñoom la ñu jagleel kaamil bi ah ñu fas yéene ko def nag ak mu nekk bii xanaa mooy xanaa ñaareelu édition bi waaw bu ko defee ñu ci sant euh, Aliou Seye ak ñoom suñu mag ñi ñoom ngañ fay ñi nga xam ne ñoo jël initiative bi organiser ko alors loolu tax nag journée bi ñu jagleel ko wax dëgg yàlla képp koo xamante ni moo nekk ci dëkk bi ci jullit te nekk way dawlu ñu ñaanal la loolu nag a ah, innal ahda kaana mas'uula yàlla ne dañu laaj kóllëre dañ ñu koy laaj bu ko defee loolu moom lañ fi organisé kii bi def jàng kaamil ñaari kaamil jàng fi quarante et un Yaasin allah bu ca kanamee dañuy def ay dog ñu jagleel leen ko di sàkku ci yàlla yërmande ci seen kaw ndax ni ñu leen koy defalee ah dinañu taxaw seen place donc dañuy ñaan aussi buñ fa nekkee ñu defal ñu loolu loolu tax fa tabaarakallaahu mu yimir mi jóg axusu billahi samil alim min aseytaan rajim laa hawla wala quwata illa billahi alil azim mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi mbokki commune Hann Bel-Air ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ah di jël nuyoo bi nag di ko teex ci imam tafsir Alioune Sall mi nga xamee ni yàlla def na ni lii ñu dëgmal muy troisième édition ñaan ñaan bi nag dafa am lu ko sabab sabab ku ñuy wax Seydina alin Sey ak ku ñuy wax baamaar ak ku ñuy wax Sëñ Ngañ Fay ak ñi nga xam ne ni mooy comité pilotage bi ba ñu waxtaanee ba jóg ñi daal gis nañ ñoo xamee ni nitu diina lañ nekk ci penc mi ah bu ko xamee ni kenn jóge na fi yàlla def ñoom ñu ñëw defal leen kaamil gratuitement bi ci toftale mooy ku soxla ngénte wala céet wala ñaan daal ñoom ngay utiliser wu ñoom nag ci la ñu wu wax ni daal bëgg nañ am laytaay jël ci seen alal bu ko defee njukkale ko daara ji ndax ñu am ci lu ñu mën a taxaw loolu nag moo indi sababu tey ñaan gi ñu indi ko fii nag ci janasa yi ñu koy wax armeel yi boo gisee ñu woo mbokki jullit yëpp ndax armeel buñ nee armeelu jullit ay jullit ñoo koy jëfandikoo kon jéggi na euh, commune bi ba tax na ñu sant ci waat nag ki nga xam ne mooy administratif bi monsieur le maire ah, Babacar Mbeng ak ki nga xam ne mooy adjoint Matar Diaw kon ñi bu ko defee it ñi génn di soxla ñaan it kenn ku ci nekk tàbbal nga ci sa xalaat tàbbal nga ci sa xam-xam tàbbal nga ci say tànk kon yow mi nga xam ne yaa jël message bi nii ci seen ndigalal kilifa xamal ko ni ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla programme bi daal sang bi noonu la tëdd première édition deuxième édition troisième édition mu tombé nag fête nationale des 4 avril kon kilifa yi nga xamee ni nag di santaale it jamiatul ayima wal ulama yi nga xamee ni ñoo langoo di boromi xam-xam tënk nag commune bi ci li nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci boromi xam-xam tabarakallahu ñu ngi gërëm nag Ali Dia li nga xamante ne moo jiite Mak TV moom it mu ngi couvrir lépp loo xamante ne ni dëkk bi am na ko ci programme programme diine programme boo xam ne bànneex la lu mu a doon rek Ali mi ngi ciy taxaw kon ñu ngi gërëm di ko ñaanal yàlla. ngi gërëm ñëpp di ñaanal yàlla nag yéen waa mag TV mii ngeen ñëw nag ñëw jël si ah taataan li nga xam ne yiwu yàlla la di ñaan yàlla mi nga xamee nag moo ñu ko may ñu ñaan yàlla seeni borom jot ko kon bu ko defee rek ñu sant organisateurs yi ah di sant sunu yaay ak sunu bàjjan yi di leen sant wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim nag. waa Mak TV yàlla na ko yàlla def muy télé bu mag télé boo xamante ne nii yarax da ciy gis boppam bu baax ndax nag ni mu nekk ni rek yarax mu ngi ci gis boppam kon yàlla na ko yàlla yokk aale fi mu nekk yàlla na yàlla gën a yéegal bon yàlla na ko yàlla gën a yéegal yéegal télé bi di jaay nabi Moustapha wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu